bâtiment tamit de Louga puissant yi daan na mu nekk moo nekk nii nii noonu di defaraat waaw pour l'instant te instant yi moom bâtiment bi jeex na li fi des moom matuñu waaw gerte ko kaa boobu moom kii xam naa après bu rafetlu waaye xam naa suñ ko mënee am dañ koo jël incha tey jii saa yi après lan moo desaat fii nii si liggéey après bii ban moo fi desaat. waaw ah. après ñaata bâtiment. Ah. ban côté ban côté la féete soowu wala. côté soowu moom mooy programme bi gën a métti ndax dal bi dal plainte la quoi. waaw waaw waaw bu dee fekkoon na urdu la démb mën nañ ko éliminer. mais dal plainte la plaque bi yëpp day toog benn côté moo tax. waaw waaw pour nga attaquer bâtiment bi aussi pour mu gaaw a wàcc mu gaaw a yomb ndax lépp benn rajo lay def quoi. waaw waaw waaw rajo général bi moo tax quoi. ndax yooyu te photo yi nga mën a détaché complètement. waaw ba ñuy équilibré nga dóor seenaat ci digg bi bâtiment bi mën a mën a nooy pour mën a wàcc waaw ndax loolu yëpp ci photo bi ci photo bi la nekk foofu la seenaat bi corrigé wu donc boo éliminer photo bi boo dóoree digg bi bâtiment bi day day day incliné wu. waaw dootul amati doole bu mun a taxaw. moo tax moo tax xanaa kon moo tax ngeen def ko deux pàcc ndax démb si ngoon ngeen ko tàmbali ba tey si voilà loolu moo tax. loolu moo tax système bi ñu bi ñu bi doon liggéey démb. bi ñu ko defaloon nii rek tey daanaka tey duñ mën a teel a pare sax. duñ mën a teel a pare. waaw attaquement bi ëpp doole yëpp démb la quoi. waaw ndax soo xoolee premier bâtiment bi mu bi nga xam ne moom la njëkk a attaqué amuloo problème quoi. amul problème waaw waaw ndax urdu la woon. bi gën a urdu la dal bi démb lépp mënoon na wàcc quoi mais dal plainte bi nii moom moo tax distance bi aussi ci diggante côté yi dañuy jege ñaata du trop quoi. waaw moo tax daal moo ñu yàggal liggéey daal dañ leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. waaw lépp daal la daal. waaw ndigal la moom fu nañ ko jëfee. te mi ñu ci am tamit dañ koy ñuy jàppale ci taw fee xam. ñu ñu liggéey ko liggéey bi bu ci ay. mais gendarmerie yi loolu leen wax na gis naa liggéey bi ngeen yaatal nii pour ngeen mën koo def fekk espace bi yaatu ministre liggéey bi nii te gis naa gendarmerie moom loolu la loolu la ñuy jox ñooñu moom macha allah macha allah même biig ñoom fi lañ fanaan hmm. biig fi lañu fanaan ndax bâtiment bi boobu toj nañ ko ba mu ba mu def presque huit chambres yoo xam ne moo def ci quatrième étage bi moo tax ñoom ñu mujjoon jël euh, seen en bi ñoom ñëpp ñu fanaan fi pour mun a sécurité faire bi ak tamit en même temps aussi kenn bañ a dugg ci biir bâtiment bi ndax nit mënoon na fee loolu ñoom ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla macha allah taxaw nañ ci liggéey bu mucc ayib bu mucc ayib ñu leen di jaajëfal bu baax baax a baax waaw macha allah. mais borom kër gi moom daa mel ni moom ku nangu dogal la ndax boo ko gisee euh, kàddu ñu mën sànni euh, kii na lool de mais nangu na dogal lool de moom loo koy loo koy loo koy loo koy ñaaxaat loo moom it. borom kër gi man dama koy jaajëfal rek ndax taalu bi loolu moo ko war daal lépp loo xam ne ndigal lu sëñ bi joxe nga ànd si ak fierté. même démb mu ñëw na fii mais fierté la fi ñëwee mbégte la fi ñëwee mm. kon donc kooku day wane ne moom li muy dund ci sëñ bi lu dëgg la waaw man moom gën naa koo nawaat bu baax nag hmm. waaw minante ñu mais naw naa ko bu baax daal hmm. waaw ndax euh, nit ki li koy jëriñ dëgg dëgg dëgg mooy mooy mu bëgg sëñ bi hmm. di jëfe li sëñ bi santaane waaw te vraiment war na ko par fierté quoi waaw war na ko par fierté ñu koy jaajëfal bu baax nag ñu koy jaajëfal bu baax ndax loolu mooy taalu bëgg Baye Fall la Baye Fall bi wax ne moom la doon moom la doon koy jaajëfal bu baax yéen tamit macha allah yal na yàlla taxaw leen bu baax ci wàllu liggéey beeg lépp ci barke maam Cheikh wax na taw fee xewal waaw kon jaajëfati kooku moo yoroon wàllum liggéey bi euh, xam naa après suñu mënee am sax euh, euh, ku nekkoon si bâtiment bi waaw borom cafétura bi suñ ko mënee am sax moom dina dina baax lool mais nag suñ ko mënta am it ñu jéem a xool ba xam yeneen bokku taalibe yi incha ñu toog ci taatu garab yi di waxtaan nañ jóg dem liggéey ku dalu da ngay dara seen damay nekk da ngay jóg dem liggéey koy fee rek bâtiment bi presque wàcc na saa yi si des nii matatul dara waaw comme ni nga ko noonu rek li si des nii matatul dara waaw si biir daa am benn chambre suñu jumle moo fa des waaw benn chambre moo fa des si la nekk noonu di kii ndax loo xam ne en cas gars yi su bëggee jël ama gars yi moom kenn moom dañ koy kii koy utiliser dañ koy jël voilà nga xam ne mu bañ a am benn inconvénient kenn bañ see gaañu waaw moo tax ñuy def ko noonu di tëjaat bâtiment boobu noonu si Thank you. xam ci yi kon instant yi la moo des nii pour l'instant à Badiol comme lu des nii pour l'instant euh, ci liggéey bi nii waaw liggéey bi nii nii waaw fi mu ne nii gis nañ gis nañ yeneen liggéey yu war a liggéey hmm. dañu war a duggaat ci marché bi waaw am na fa ay diggante yu waaye bu dee bii moom hmm. li des mooy yëngal daal bi rek garawaay bi wàcc suuf pour peel yi maanaam maanaam disponibilité pour mën ko pour mën ko toll waaye fi mu ne nii li ñu bëgg a wàccee lépp moom hmm. yàlla na jàmm wax dëgg yàlla ak seen liggéey bu ay baam macha allah lépp wàcc na wax dëgg yàlla moom daa mel ne bâtiment bi xaw na fee yàgg moom diiree na fi bâtiment bi waaw xaw na fee diiree parce que surtout même gàtt gàtt def na fi ay dix ans et quelques hmm. hmm. mais bâtiment bi daa mel ni dëgëroon na ndax ñu ngi koy gisee nii ba ñu koy toj yàgg na yàgg nañ ci. waaw dëgër na. Hmm. dëgër na waaye liggéey bi dafa nu ko xaw a seene muy day dal day dal plein. ma hmm. dal plein bu bari ay fer comme ni ma mel nii. Hmm. liggéey bi du facile mais bu doon bu dul tourné. da koy dagg par moitié. mais nag wax dëgg yàlla machine bi. macha allah ki koy yor wax dëgg yàlla euh, jàmbaar la ak taalibe la wax dëgg yàlla. donc équipement yëpp wax dëgg yàlla. liggéey bi nag ay jëm ci liggéey wax dëgg yàlla. mais xanaa après kon suñ mënee am euh, suñu mbokku taalibe fii si biir est ce que nañ ko mën a am après suñu suivee. waaw actuellement nii moom mën leen koo. actuellement moom bis bu déglu. Eh. bu dee fekkente ne moom ñu mën a defagu. waaw ah, parce que moom mii moom moo ànd ak moom. Eh. moom moo ko moom mooy moom mooy contrôlé. Eh. superviseur la. superviseur moom mooy superviseur euh, liggéey. Hmm. liggéey bu ay mu ay la fi def. Hmm. xëy na daal suñu pare woon ba ba toog daal moom bu boobaa. Hmm. mu ngi introsé ko moo xam na ko yomb waaye nag pour le moment moom. bi mu concentré pour mën a pour mën a jàlle benn message. waaw waaw kon sama gars yi kon ñu déggee ko noonu euh, waaw lu mën a jàppandi après xanaa su paree liggéey bi rek mooy heure añ comme heure démb moom heure mbéyeen yi waaw ñu jéem koo jéem koo kii. heure pause heure waaw incha allah ñu jéem koo ab incha allah waaw yéen a koy dëkkal fii nii si DDTV waaw euh, sëñ Modou Baye Fall moo leen koy amal foofu noonu waaw. dégagé ñoom ñoom bu ñu ñëwee commencé tibb mën nañu am accès ñoom ci biir bâtiment bi ñoom parce que li fi def bëri waaye bu ndékkeegul moom mii bu ndékkee bu ndékki nag ñu doog a jàll feneen mu dallu tuuti waaw mu dallu ne foofu yaakaar naa am ndékkaay bu fekkee keneen ma ba

Law kata iya, iya, iya. ini Baru kata di Baru kata kes Dia di Dia di Dia di Dia di yeneen oto yi mu jël nag yëpp nañ dugg fii si biir jur gi yabal leen oto yi ñooy fee doy na sëkk yeneen oto yi ci des ñu dugg fii ci biir jur gi dañ yabal mooy gën a baax oto yëpp da laa koy tukki day yàq